du salli wal tusallim sarmada ala alladi sammaytahu muhammada naafiu salli wal tusallim sarmada ala alxalili walhabibi ahmada naafiu salli wal tusallim kulla hin ala nabiyika raisi salihin ahadu salli wal tusallim fi abad ala rasulika siraji man abad latifu salli abadan wa sallima ala khalilika muradil ulama latifu salli abadan ma salam ala sirajika alladhi jalla dhalam اكتب له في آله والصحب خير سلامين وودح لحبي هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من محى ملامي وجه لأفضل فرل خيري جاك الأخير يسوقه لخيرنا المهيب هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت المبين يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أزال الحيرى آتي رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتخى قد فاخ من مضى ومن يأتي ومن في ذا الزمن tasliimu baaqin wa salaatun xullidat ala alladi shaklu nisaama waladat habli rasulillahi ya dal qadari muraadahu bila adan aw kadari bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammadin afdali xalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Mouhamed Seck ñu ngi lay fay ab nuyoo di nuyu mbokki Ndindy Actu di nuyu waa réew mi yëpp di nuyu mbokki jullit yëpp di am mbégte bu baax ci dajawaat ak yéen fii ci kër Serigne Abdou ci bis bu tedd bi nga xam ne ci la nekk tey muy bisu Kazu Rajab di bisu Cheikh Mamadou Fadal di tàmbali rek ci ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha ñi nga xam ne moo toog jotaayu borom Touba di ñaan yàlla yàggal ko fi loolu te may ko ak wér di siyaar bu baax tey ndokkeel bu baax Cheikh Abul Baraka mi nga xam ne moo toog jotaayu Cheikh Mamadou Fadal ci turu jawriñam Cheikh Mamadou Bachir ak njabootu Sëñ Fallu gépp waaye di am bu baax nag di am bu baax di santaat yàlla bu baax di santaat Cheikh Mamadou Fadal bu baax ci bis bu tëdd bi nga xam ne ñëpp xam nañ li mu làmboo ci ay ngëneel la ci jiitu mooy al isra wal mi'raj mooy bis bi nga xam ne ci la yàlla allahu jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yónni woon Seydina Jibril alayhi salaam mu jël si woon soppeem ba yonentam ba alayhi salaatu wa salaam Seydina Muhammad mu wuy ji woon ko ci wooteem boobu nga xam ne moom la ko woote ngir daje ak moom mu jox ko ci nag sëriñ boo xam ne ba àdduna di tukki moom la euh, jullit yi di di di di rawantee ci ku ko matal ku nekk ñu tuddee la ab jullit ku ko desal ku nekk euh, loo doon yaa ko tuddee sa bopp waaye jullit moom desul ko mën a wooye muy muy julli mi nga xam ne dafa bokk ci ponk yu gën a màgg ci lislaam gannaaw boo tuddee baati seede yi nga xam ne moo lay dugal ci lislaam julli mooy euh, mandarga mi nga xam ne walla ponk bi nga xam ne moo gën a dëgër ci lislaam bis boobu nag euh, moo dellu ay at ginnaaw bi euh, ñu am ci gan gu tudd Cheikh Mahamadul Fadal feeñ ci kër Cheikh na Ahmadul Khadim te borom Tuubaa wax ci moom wax ju rëy joo xam ne ñëpp dégg nañ ko di ko axtaway naa maa loxo nastaaqu salla alayka al akramul kon kooku bu fekkente ne bisam dafa dellusiwaat te moom ci boppam mu daan ko dundal daawu ko woote waaye daan na ko dundal di ci sant sëñ Tuubaa di ci sant yàlla te ba mu koy def dafa toog ba def lu jar mu war a sant yàlla ci ak dundam ndax li dal sëñ Tuubaa ci yoonu géej moo ko dal ndax sëñ dafa sant yàlla ci bis ba nga xam ne ca fi jóge woon di dem moom nag dafa sant yàlla moom it ci bis bi nga xam ne ci la dikkee woon àdduna wax ne bis bi li tax ma ciy sant yàlla mooy ci laa ñëw bu mën a liggéeyal Sëñ Tuubaa waxit ne dama sant naa yàlla bu baax ndax dama teel a xëy ci toolu Sëñ Tuubaa bi guddee wàcc lool te duma ab jaafuus euh, loolu bu ko waxatoon nit ñëpp xam nañ ne teel na ciy xëy ndax ci moom la feeñe mu toqi ko tarbiye ko jàngal ko euh, liggéeyloo ko ba gërëm ko ginnaaw bi mu fi jógee mu topp Cheikh Mamadou Moustapha ayub xilaafaam gi diiru yëpp mu di ko liggéeyal di aw ci ay ndigalam di sant Sëñ Tuubaa ci moom di ko liggéeyal di liggéeyal Sëñ Tuubaa ci moom ba noppi koo gis toog jot Sëñ Tuubaa wéyal liggéey boobu ci mbooleem njabootu Sëñ Tuubaa gi Sëñ Fallu bi mu fi nekkee ak njabootu Sëñ Tuubaa gi ñëpp ñoo doonoon ay sëriñam ñëpp la jàppee woon ay sëriñ Cheikh Mamadou Mourtada mi nga xam ne uh, moo mujj ci ñoom sax mag ñi nee nañ bu ko masaan seet si sëñ bi di yëg ne ab sëriñ ko seet bu toogee ci lal faw mu def noo xam ne da xam ne kii kilifa la def ki koy seet si boo ko fekkee mu solo daal sax day day day summi dàll yi booy nuyu Cheikh Maodo Mourtada Cheikh Maodo Mourtada nga xam ne loolu war ma ji mu joxoon Sëñ Tuubaa ak ñu jàppee woon Sëñ Tuubaa moo tax ba mu demee euh, doon kilifa waa kër Sëñ Tuubaa yi mu jàppale ñoom ñëpp ñu Sëñ Tuubaa di liggéeyal Sëñ Tuubaa ci ñoom ba ñoom ñëpp mu am seen i ngërëm waaye nag wéy di liggéeyal jullit yi wéy di liggéeyal taalibe murid yi ba nga xam ne fu aw àgg wala fu darajam àgg rek loolu moo ko fa àggale kooku moom la bisam del siwaat tey ñu woo ci waa réew mi woo ci jullit yëpp waaye ñëpp wuy si nag sëriñ bi di am te bu baax ci ni njabootu lislaam yëpp wuy see ni réew mi yëpp wuy ndax ku ngi fi ay jullit ak ñu loolu nag euh, xam fi Sëriñ Fallu toll ci réew mi ak li ko réew mi jaraloon ak fi fi mu àggoon ci euh, di taxaw njabootu lislaam bi njabootu réew mi moo tax ñëpp nag delloo ko njukkal bi mu wootee ñëpp jóg wuy ko ñu ngi sant ñëpp ci loolu te ñaan nag ci dara jàmm ak mbaaxam jëpp aaju jox xam ne waaye indaale na ko fi wala yore di goo xam ne waaye indaale na ko fi rek yàlla jaarale ko ci barkeb Cheikh Modou Fadal barke bis bi tëdd bi def ci saafara ba borom bu delluwaatee mu yëg ci boppam loo xam ne wóor na ko ne lii bokkut ak la mu indi woon Touba waaw ñi euh, fàttali ne cérémonie bi nañ ko baaxoo defee buñ màggalee ba ca ëllëg sa muy talaata yi ci 10 heures lañ koy def ci kër Serigne Fallou nañ ko daan defee at yi jàll dafa fekkoon dëkk bi nekkoon ci ay xat waaye ndigal tënkoon muy ndigalul xalif général Cheikh Mamadou Mountakha ñu fi yàgg ñaanal mu yàgg fi mu waxoon ne nañ ko def ci anam gañ ko doon def dañ ji nag moo xam ne nañ ko dellu ci cosaan la nañ ko daan màggale moo tax woote bi yaatoo nii mu yaatoo waaye incha allahu li ci aju ci nañ ko daan màggale bu njëkk lépp waajal nañ ko nañ ko defee noonu Euh, sant sëñ Fallu bu baax sant ci yàlla bu baax sant ci borom Tuubaa bu baax waaye di ñaanal julli yëpp wakfini kulla ma lam tuhibbahu li qabla tawajjuhihi ilayya wa qabla tawajjuhi ilayhi waatina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar amin ya rabbal alamin اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا wa mawlaana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa thabbit li xayral iimaani wa xayral islaami wa xayral ihsaani wa xubballaahi taala wa xubba rasuulihi sallallahu taala alayhi wa sallam wa xubba kulli maxtarta li xubbahu wa saadata daarayni maa kifaayati hammayhimaa amiin yaa rabbal aalamiin bilaa maxwin abadaa yàllaawu yaa xafiidu salli bi salaam ala alladi laka bihi hada alkalaam sayidina muhammadin wal aali wa saabihi fi lxaali wal maali waxfad bi jaahihi alcadiimi aqdi min alcuyuubi waxmini an waqdi yàllaahu yaa maanicu salli bi salaam ala alladi bihi kafaytani almalaam sayyidina muhammadin wal aali wa sahbihi fil haali wal maali wamna bi jaahihi al-aziimi qalbi min al-uyuubi wahmini an salbi yallaahu yaa kaafi adim xayra salaa maa salaamin lillazii tanmu ulaa sayyidina muhammadin wal aali wa sahbihi fil haali wa fil maali ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر يا الله يا أحد صل بسلام على الذي لك به مني الخلام سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم يا الله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا